ngir gëna a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification ñii di ONG Alpha Dev doon nañ amal seenu clôture projet bi di Jofa Joining Force for Africa clôture projet boobu nag nga xamante ni ci département Kër Massar ga yépp ña ko doon amalee foofee ca Yëmbal Nord ca Aïnoumady 6 ñi nga xamante ni ñoo di coalition des acteurs pour la protection des enfants et le développement des Aïnoumady CAPEDA ñoo doon dalal clôture projet boobee foofee ca Yëmbal Nord benn braque quartier ci ay Aïnoumady Cissé ñii nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci projet bi dikkaat nañu ci clôture projet boobee di Jofa. Ah, Jofa comme ni ñu ko déggee mooy Joining for Africa muy consortium boo xam ne si ay ONG international ñoo ko bokk muy Terre des Hommes SOS euh, World Vision ak euh, chef de Children. Alpha Dev nag nekk benn organisation boo xam si dafa nekk partenaire de mise en œuvre bu Terre des Hommes euh, ci ci activité Jofa yi Alpha Dev dafay am appui donc au CSPE et au CCPE ci cadre boobu nag le CSPE bi nga xam ne si moo nekk ci arrondissement des Niayes ci département Kër Massar bu bees bi ñëwoon Alpha Dev élaborer benn plan d'action ci plan d'action boobu nag ci la ñu nekk di mettre en œuvre loolu moo indi tey activité bi. waaw projet la boo xamante ni ONG bu ne Alpha def ñoom ñoo ko am ak tête des hommes suisse ñu tuddee ko problème euh, programme Jofa. programme boobu nag Alpha Def daf si jëloon benn pàcc dénk ko CSPD Niayes donc CSPD Niayes ñoo ko organisé doon nañ déroulé nag si arrondu si département bi yëpp parce que bi ñu commencé projet boobu département commencé ko mais intervenir si département bi yëpp ba tey nekk clôture bi waa CSPD daan nekk clôture bi nañ ko joxe waa CAPEDA ñu def seen centre moo tax ñu indi fi programme bi tey. acteur de développement yi ànd ak ONG Alphadev dikkaan nañu bu baax baax ci li nga xamante ni moom di solos activité boobee. dañoo nekkoon ci jamono bi mi dañu ni ci mi ak ak yelleefu xale yi ak jigéen ñi dafa nekk dafa sooxe lool li ko gënoon a indi nag mooy yi tamit ñu ci bëri. Euh, ci mesure restrictive yi ñu amoon dematuñu liggéeyatuñ ñu ngi toog ci biir kër yi ñu gis ni ci jamono jooju nag nit ñi stressé nañu jafe-jafe yi bëri na problème yi bëri na ba nga xam ne si indi woon na ay jafe-jafe ci dundin bi ci biir kër gi ba xale yu bëri ñu ngi doon subir ay violence comme jigéen ñi tamit ñu ngi doon subir ay violence loolu moo tax nag projet bi ñëwoon nii day xeex lépp loo xam ne sii dina fexe ba nit ñi mën a protéger wu ci pendant ak post Covid maanaam ci jamonoy Covid bi ñu mën a fexe ba protéger xale yi mais bu Covid bi tamit jeexee ñu mën a continuer di protéger xale yi. waaw programme bi li mu doon mooy euh, euh, Terre des Hommes Sus dafa amoon programme bu mu doon def si si jàppale xale yi léegi nag bi Covid bi ñoom ñu ne léegi loolu dañ koy jël si pour aar xale biir Covid parce que gis nañ ni Covid bi ay dérapage yu bari amoon na si ñenn ñuy dóor xale yi métital xale yi ñu def ko programme boobu nag mooy mooy solo bi programme nag Alpha Def am na si programme yu bari am na si xale yoo xamante ni seen jàng yaa na ñu ngi leen jëlaat di leen def ay am na xale yoo xamante ne amuñu woon ay kayitu juddu ñu ngi leen di def ay kayit sa projet boobee ni ñoo sekk projet bi dikkaat nañu bu baax a baax ci li waral ñu taamu rek temu état civil. waaw taamu lu tax ñu taamu état civil ku nekk xam na moom mooy commencement dund. mooy jeexantalu dund mais mooy commencement dund ndax ku juddu te identifié la rek mën nañ ne existé C'est le processus la processus nag ci état civil mooy acte de naissance acte de pièce d'identité euh, euh, ñu euh, déclaration de mariage certificat de divorce certificat de mariage yëpp mi ngi ci bir, même certificat de décès lépp mi ngi ci biir état civil. waaw oh, am kooku mom ay rees daf may japp parce que thème état civil bi boo xoolee tey si li ñuy wax département Il y a tellement d'enfants yo yoo amuñu genre posent des problèmes d'État état civil waaw fi ñu ko indi ni tay ñun xam nga CAPEDA nga bok yow defon nañ fi ben recensement bon on a recensé 366 enfants dans le quartier yo xam ils n'ont pas été déclarés à l'état civil donc yenn si 12 yoo xamante ne douze parents yoo xamante ne même les parents n'ont pas de papier d'état civil donc loolu moo tax ñu ne kon na ñuy def waxtaan ci état civil ngir mën a delloo ci waat nit ñi ci important état civil moo tax tey man en tant que imam ñu jox ma tey ma waxtaan ci l'important de l'état civil le point de vue de l'islam fan la ko yàlla wax ci alxuraan parce que yàlla moo xam ne maa farna fi kitab min shay'in rien n'a été laissé au hasard dans le Coran donc ñu wax fan la yàlla wax état civil ci alxuraan nan la ko yonent bi waxee loolu moo tax ñu defar thème bi noonu tey. waaw xam nga comme ni ma ko waxee sànq CCP bi CSP bi dafa def plan d'action plan d'action nag buñ koy élaborer lu ci bëri dañuy xool ay jafe-jafe yi nga xam ni moom lañ gën a nemmeeku ci biir quartier bi. bu ñu xoolee jafe-jafe yooyu nag ci la ñuy xool jafe-jafe yi ci ëpp yi ci gën a métti ñu taxaw ci nag jëm koo xeex loolu moo tax nag ñu gis ni si biir Sénégal de manière générale mbirum declaration de naissance dafa am problème te ku ne xam ne ni kayitu juddu mooy ndeyu kayit yi. naka noonu it àdduwaat nañu ci li nga xamante ni rek moo di njeexatalu projet bi ak lañ ca doon séentu. waaw ah, macha allah gis nañ ne def na am na impact bu baax boo xamante ne def na ko parce que ñi ci xamul woon xam nañ euh, d' ailleurs ñi ngi ñi ngi ñi ngi sensibiliser délégué de quartier yi nga xam xamuñu woon ñuy gën a leeral ñi nga xamante ni euh, bu ñu amee ko accouché au ñoom ñu ñëw ci ngénte rek yam ci dañuy ñëw ci ngénte bi tudd bi waxaale leen rek suba ak jàmm na nga dem déclaré ji ko le lendemain bi aussi dinañ ñëw def suivi bi xool ndax déclaré nga ko ou kon loolu ay jéego la ñu sant yàlla. ni implication acteurs yooyu ak bajenu gox yi ngay dégg ah, ak point focaux yeeg ñëpp gis nañ ni daal vraiment y une baisse ah des des violences yi nga xam si mi ngi am ci xale loolu wane na ni wax dëgg fa yàlla mbirum protection ak ak yelleefu xale yi ak métital yi ñuy def ci xale yi société bi sénégalaise ak acteurs yi ñëpp taxaw nañ ci ba nga xam ni waxatuñ sax di ko gis mais mu jóge fii ci ci loolu daal ci lañ taxaw fi nii. waaw xam naa ne bu ñu ko atteindre complètement on a 80 pour cent même bu ko def à 100 pour cent on a 80 pour cent sincèrement. ngir gën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ni moo di cloche bi ngir mën jot yooyu les notification